naataal fanweer ak juróom-ñaar waaye gëm yépp dañoo war a booloo ngir sagal sargal yàlla nañu jànge ci biibul bi wéy ak bàkk borom bi ànd ñaan war nañu indi ay sarax ci liggéeyu yàlla bi yàlla nee na ñuy fàttaliku deewu suñu sang bi njabootam nañu seddoo mburu mi ak sëng si mburu mi dinañu fàttali yaramam bi ñu daajoon ci bant ndax ñun sëng si fàttaliku deretam bi ñu tuuroon ngir seetal ñu noonu lañuy fàttale ko faatoom di xaarale dellu seem